CNG bu bees bi CNG bi bu bi fi nekkoon jóge na fi bu bees baa ngi fi mais coow li bari na Bécaye dafa war déglu nit ñi Bécaye Sène dafa war a xool li bëgg mu koy def en tant que su laaj yow mi nga xamante nii ci ci ci làmb nga bokk yow nga écrit xam nga mbëri li ñu leen di dagg xam nga mbëri bu ñu dugg li ñuy daj te et nga ak ni nga nekkee amateur nekkee ko ménager lan nga lan nga leen di sànni wala boog lan nga leen di ñaax. waaw bala maa ñëw rek damay ci ñeneen ñi ndax affaire jiit xaw a métti c'est juste da nga ma laaj ci ñaari mbër yooyu mais loolu valable na ci ne ko réel mi ngi waajal marle ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ci ndam Feugeula di waajal armée ñu koy ñaanal moom it yàlla may ko ci ndam euh, ku ci mel ni euh, Coins di waajal double moteur ñu koy ñaanal yàlla may ko ci ndam Tigre Junior moom it am combat ñu koy ñaanal ndam euh, ak Njaay laax kon moo lay wan ne ñun fi mu toll nii xale yi ñu ngi toog ci ay combat di ko waajal bu saison bu ubbee. da nga yem ci ñaar mais njiit moo xaw a métti ndax ki cof émission bi mën na ne max ñaari combat yi la tudd te ci nga ma laaj. beneen bi dañuy dal ci biira Sène man waxoon naa ko nee naa woon changement bu bëri xalaatuma ko woon ñu ne ma lu tax ma ne leen pleine saison la ñu arrêté am ay combat yu des ñu officialiser ko ñu officialiser ko au niveau du CNG comme ku ci mel ni Siteu Papa Sow Soko Sim ak sari Ndiaye 2 soq ak gàmmu koy ak yeneen i combat ne officiel na ba nekk au niveau du CNG. licence yaa nga fa mbër yaa ngeeg seen i contrat seen i ménager pandémie bi dal ci suñ kaw ñu arrêté ko gëw woon ñeme xalaatoon naa ne ministre bi du ñemee jël ay risque di jël gan di ko fi teg kon du doon continuité dañuy delluwaat à zéro. teg it ko xam làmb lay doon donte nag am na ay changement ci gérance bi trésorier wala ñu defee noonu wàllu communication wàllu finance wàllu marketing gis nañ ci yeneen i bopp. mais directeur administratif bi toxuwul muy Ndiame Diop ndax moo doon liggéey ak Ibrahima Sarr moo liggéey ak Ndiame moo moo moo moo liggéey ak Ibrahima Sarr non moom moo moom Ibrahima Sarr Ibrahima Sarr doon liggéey ak CNG euh, moo ko wuutu Ndiame moom ba tey moo liggéey ak CNG bi génna te mooy continuer liggéeyaat ak CNG bii. keneen ku ñu jël ku ne xam ne ne bu Dakar rombee ñaari CRG yi gën a yëngu Kaolack la ak Thiès ñu jël. Euh, président CNG jox ko président CRG bu Kaolack muy Bira Sène nga xam ne maa ngi fàttaliku CLAF 2006 2007 Tidiane Faye ak Jaguar jëlaw spectacle boobu ak Tonnerre ak euh, Moussa Dioum nga xam ne foofu la amee woon ca Kaolack booba moom mooy président CRG kon Bira gan ci làmb ji am na lu maîtriser beneen bi muy Maysa di président CRG bu Thiès ñu def ko premier vice président chargé de la lutte avec frappe jël manga mu doon troisième mu dem deuxième mu doon deuxième vice président chargé de la lutte euh, simple Manga doon roi des arènes bi mu bàyyi di tëgg combat arène di tëgg ay tournoi kon moo lay wan ñi nekk ci bopp bi président beeg ñaat ñetti vice président yëpp ay nitu làmb la ñu jël yeneen nag dugal ci beneen équipe kon moo lay wan ne euh, teg nañ ko ci yoon ñu bañ nit ñi mer rek ñu yaatal ko ba mu doon cinquante deux ma cinquante neuf membres la ñu ñenn ñi di ay personnes ressources vingt quatre yi di ay conseillers su ma juumul huit yi di bureau exécutif bi war a liggéey euh, soo gisee mu demee noonu nag dañoo xam ne làmb yëf yi ñëpp la nag ku ne wax xalaatam mais li ma ci ëpp solo rek mooy jiital ko xamul sax te jàppale la moo gën ñu jiital ko xamul te jàppale wuñu la li niñ débuté rek baax na ndax baal nañu ñi amoon ay sanctions yëpp arbitre yi rajo woon reconduire nañ leen ñu mën a continuer euh, ak ñoom ñàkk jariñu ak euh, Alioune Seye 2 beneen bi wàññi nañ prix licence yi promoteur lutte ak lutte ak bëre ak simple bi yëpp lutte avec frappe ak bëre simple ménager ak lutteur kon mooy wane loolu ñu ngi koy rafetlu niñ jot a duggee di leen ñaanal rek ñu continuer seen mission tey déglu nag làmb yëfi ñëpp la nañ mooy yenn textes yi rek wala chute yi ci wàllu jël lii jël lii jël la mënoo woo ñëpp mais ñu tànn ñenn bu ñu dee def yenn règlement yi ñu di leen ci boole ku ne di ci wax xalaatam te ñu ubbeeku nag di nangu critique mais bañ ku la critique nga nga mer ndax làmb ko bëggul di ci wax. kon ku lay wax nga déglu ko bu dee lu baax nga jariñoo ko bu baaxul nga xam ne yéene na daa xamul loolu bu buñ ko defee du ma ne duñ jummee du bëri mais dama leen di ñaanal rek man waxoon naa ko ginnaaw ba dañuy doog a ñëw dama leen di ñu bañ a juum buñ juumee it ñu taxaw ne juum na gàgganti leen ñu mën a continuer mais man sama mission du xeex làmb sama mission mooy làmb jëm ci kanam ndax xale yi ma jabote ne ci seen ginnaaw Siteu contrat ko fi téye ndax day boole MMA ak bëri dóor te bëgg naa libéré wu dem defi leneen te bari na ci morom ñeneen ñaa ngi bëgg combat war a bëri dem wite leneen même promoteur yi combat yi ñu war a taxaw taxawala guñ ko ndax dañu bëgg làmb ji ubbeeku jël ay date mais mënoo jël sa xaalis rek di investir tëggoon nga joxe ay avance xamoo fuñ jëm mënoo continuer di taxawal beneen bi may wax mooy ministre bi wàcc na CNG bi wàcc na le président de la république moo ci des décret la defoon arrêté ko na defaat décret làmb ji ubbeeku ñu continuer tëgg feebar boo xam ne du la tee doxi say soxla nan ñaan mu jóge fi loolu warta tee nit ñi liggéey yi nag waaw siburu bu la daloon tey doo yëngu mais corona da lay dal te doo ko yëg na ñaan yàlla jëlee ko nit ñi continuer seen i activité ñu dee ci kër yi waaw. non non waaw ko bi décret la defoon tëj ko na defaat décret tijji ko ñoom ñi ngi liggéey acteurs yi làmb yi liggéey ñu ngi toog te ñoom ñi ngi liggéey. waykat yi sax génn na ñoo ngi. non dama mooy li ma wax rek non nay tëjaat dindi ko ñoom ñi ngi liggéey. ñeneen ñi def nan. dëgg de seen liggéey lañ voilà ñu bàyyi ko rek parce que xam nga xool ministre des sports mënu ko ah li def mooy fal bureau bu bees installé leen ñu ne ndax mais problème mooy décret la defoon tëj ko ne defaat décret tijji ko ndax ñoom ñi ngi liggéey mbëri liggéey ak acteurs yi ciy yëngu. ñoo ngi ciy jaajëfal suñ papa Youssou Ndour gis nañ ko ba kii démb bi muy def euh, soirée bi sax jàllale na ko nee na football moo ngi dox basket ngi dox ñëpp a ngeen génn dem doxi seen soxla na ñu tijji làmb ji xale yi bëre daan seen doole wut lu ñu yóbbu seen waajur